benn raison bu war a mën a tax ñuy dellu ci loolu. alors président il appelle à un dialogue euh, politique inclusif élargi pour que ñu mën a démarrer waat le le, le processus waxtaanee euh, li nga xam ne moom moo gàllankoor processus bi réorganiser wu euh, di nga dem ci dialogue bi. xam nga may mun a loolu waxtaanee guñu ko ci suñu parti mais. lu ma bëgg a wax foofu moom mooy président dafa dugal réew mi ci guuta ci benn crise crise boo xamante ni moom après daf ci bëgg génn mu ngi invoqué dialogue mais soo xoolee dialogue yi ñu fi def dans le passé sooy interroger dialogue yooyu euh, suñ ci xoolee mais ban njëriñ la ci Sénégal tiire dëggantaan dialogue bi mujj lan lañ ciy am lu dul ñu euh, permettre à certaines personnes de pouvoir être candidats des intérêts partisans est-ce que intérêt réew mi la est-ce que am na lu mu yokk ci démocratie sénégalaise waaw dialogue bii tamit pour génn ci benn crise boo xamante ni moom moo ko indi man jàpp naa ni lii mën a régle lii mën a tax Sénégal dalaat te ñu ngi koy ñaan ah. man maa ngi koy ñaan de tous mes voeux parce que moom wax nañu moom mooy le seul responsable de tout ce qui se passe li fi am. nii jàpp nga ne c'est le et le seul responsable lii am nii moom récemment moom moom ci rapport bi jàpp naa ni tamit il faudrait que ñu jéem a xool ñu ànd ak suñu sago jéem xool na la.